mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sante yàlla julli ca yonenteem ba euh, sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye sant suñu ñaari waajur ñoo ngi ñaanal bu baax Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ba lépp loo xam ni naan na koo liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ko waa wajuram bu baax wa ma Mamadul Basir mu defee ko nu mu ko soobee ci barke borom Touba waaye noonu lañu koy ñaanale ki nga xam ne moo fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp euh, muy Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool te wér lépp loo xam ni naal na ko ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall mu def ko ba mu def ko nu kawe njortam noonu lañuy ziare ak a nuyu euh, njabootug Serigne Touba Xaadim Rasul gépp mboolem xalifa yi général yëpp noo ngi leen di ñaanal ah, ku ci ne li nga naal ngir liggéeyal ko Serigne Touba yàlla na yàlla bàyyi la ba nga def ko ci sa sago ci doole yi Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaye noonu la ñuy ñaanalee képp koo xam ne sol nga saw dal euh, te lislaam ñor la taal bi nga xam ni mooy taalub lislaam fa ko bëgg yàlla yàlla dogal nga yóbbu ko ci jàmm ci doole Serigne noo ngi nuyu bu baax sunu wasila sëriñ Mbacke Madina Kane moom sëriñ Sadeex moom sëriñ Mor Kumba Kane noo ngi ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi loolu te wér waaye noonu la ñuy nuyoo bu baax euh, dem ba taaru ja nu fiy nuyu ka nga xam ne mooy xalifa ba muy sëriñ Ablaye Touré noo ngi ñaan yàlla na yàlla guddal fanam di siyaar bu baax sëriñ musaa ture ca Mboro di ñaan yàlla na yàlla guddal fanam lool mbokk yi tey nag seen émission bu mag bi nga xam ni ñoo ngi koy door muy waxtaane ak bokk waxtaane ak bokk nag bàyyiwul fenn ndax réew mi ñi fi baax ñépp noo bokk maam nu àndandoo ci nag ak seen site internet bu mag bile muy 24 at ñu koy door tey fas yéene nag waxtaane ci maam yu baax yi ak njabootu Serigne Touba gi ak seexi Serigne Touba yi tey nag lu moo xam ni euh, kuy wax Serigne Touba ci moom ngay tàmbalee ci moom ngay yem ndax rasulullahi mi nu ngeen gi def daan na wax naan bu ñuy lim samay maam bàgg ci àdduna nan fa yam ndax foofa rek falaa laa waaye kuy lim maami tubaa Touba bàgg ci maam maaram man nga faa yem maam maaram Mbàkke nag mooy maami Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul suñu yaakaar téegal ak kan mooy maam maaram abibulaay la ñuy woowe baayam abibulaay baayam nag moo sanc dëkk bu ñuy wax mbàkke saa ñànka waaye aram ñang la ñuy yaayam maam mbàkke nag baayam abibulaay moo ko jàngal alxuraan waaye bi mu matee jàng xam-xam yàlla da ko doo boole ak góor gu mag koo xam ni taalam ci lislaam kenn du ko fàtte mboolem ñi sant Mbàkke ñëpp muy seen maam muy maam Maxtaar Ndumbe Jóob kokki kan mooy maam Maxtaar Ndumbe euh, moo sanc dëkk bu ñuy wax kokki jàngal ku ñuy wax seer jaane jox ko njaane daramaan fa kumba ci la daramaan mayib asandari mu sancal ko kokki mayib baaba dikk xëri njaay mu sancal ko xelkom ma sàmb fa xujja mu sancal ko déqale siré xujo kumba sanc ndaam siré waaye maam maaram mbakke sanc mbakke saa ñànka maam maaram nag bi mu jàngee ci maam Matar Ndumbe ba del siwaat dëkk bi mu feeñee jamono dafa jël ay soxna dafa denc jigéen ju ñuy wax soxna awa ñang am ca ku ñuy wax soxna mbakke awa astu mbakke awa ñang mbakke awa ak ibrahima awa ñang moomee anta njaay mbakke mu meññ maam Cheikh Anta Mbacke borom salaam ak gaawaan mu dellu ci maaram soxna Mbacke Awa Ñang dañu ko jox ku ñuy wax maam Njambe Jaxate mu am ca kan ku nuy wax ab Absa Jaxate Ibrahima Jaxate Ahmadou Gurel Jaxate ak Xaadi Amar Jaxate sa Jaxate moomu daara xuju kumba bi mu demee mbakool am fa monsieur daara moom lañ ko jox mam ci Xaadima Jaxate kala ma Jaxate kala nag moo jur Serigne Mbay Jaxate mi nga xam ni moo àndoon ak sëriñ Bamba te woy ko woyu rëy yooyu maam tàllal loxoom jëlaat jigéen ju ñuy wax soxna Bousso am ci sox Ahmadou soxna Bousso ak Sayer soxna Bousso Ahmadou soxna Bousso moomee nag moo jur ku ñuy wax ab salaw be Mbàkke ak astawaalo Mbàkke astawaalo Mbàkke ñu jël ko jox ko xaari mu waran seli siin ba Ah, moom ca jigéen gi nga xam ne moo liggéey liggéey bu rëy ba muy soxna jaara ma nga xam ni moo liggéey liggéey bu rëy boobee soxna jaara nag moo meññ xaadim mul xaddim mi nga xam ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg ab salaw ba mbàkke nag moom la ñu yóbbu kokki jox ko sëriñ kokki njagey sa jéey moom Modou Fa Xuja moom maam Matar Ndumbe Jóob mu am ca kan maam maam te kon Faati Isa jël ko jox ko maam Mor Anta Sëli seen ba maam ca maam Cerno Birahim soxna Faati Bintu soxna Aminta Mbakke soxna Faati Bintu moom la jox sëriñ Mëndumbe Xabbaan sëriñ Mudu Mëndumbe Xabbaan moom ci sëriñ Mudu Xabbaan borom xabbu ga ci dende yi soxna Aminta Mbakke ñu jox ko sëriñ Dam Abdourahman Lo mu ci soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo màgg baax jox ko sëriñ Muudu Moussa mam ci sëñ Mbacke Madina ak soxna Mariam moom mu baax ma maam Maaram Mbacke jël jigéen bi ñuy wax Xëri am ci Ahmadou Xëri Jóob Ahmadou Xëri Jóob moomee nag moo jur ku ñuy wax baaba Njéeme Mbacke Baba Njéeme Mbacke moomee nag moo jur ku ñuy wax sëriñ Balla Joor sëriñ Balla Joor meññ ku ñuy wax sëriñ Muudu Balla Joor sëñ Muudu Balla Joor ñu jox ko suñuy soxna suñuy wax soxna Xadi Kan moom sëriñ moor Kumba Kan moom ci sëriñ Moustapha Balla Dior mi nga xam ne mooy bàyyi sëriñ Modou Mbakke Gaynde Faas Maam Maara tàllal loxoom jëlaat soxna su baax su ñuy wax ay sa kan am ci ak njaboot gu barkeel kooku nag mooy Maam Maara mi nga xam ni tey moom lañ leen andil ab sa jaxate moomee nag wax naa ko léegi moo jur xaadima jaxate kala mu meññ sëriñ Mbay jaxate mi nga xam ni moo woy Serigne Touba way yu mag yooyee nga xam ne ku ne dégg na ko ma Maaram Mbàkke nag wax naa ko ci tàmbali bi ah Abibulaay baayam moo ko jàngal waaye bi mu matee matuli dafa dem kokki nga xam ni kuy lim kër yu baax yi di nga ci boole kokki ndax Maam Matar Ndumbe Diop moo taal taalub lislaam yi mbokk yi nag émission bi nga xam ni tey moom la ñu tàmbali ah noo ngi ciy di ci waxtaane nag maam yi nga xam ni ñoo àndoon ak Serigne Touba ak seexi Serigne Touba yi waxtaane ci ak bokk tey nag ñu di ko door ci bis bile waaye di leen jox rendez-vous par 15 jours bu ne ñu àndante ci ak yéen waxtaane ci maam yi waxtaane ci néeg yi ndax ni maam yi amee ni la ay néeg am ab jaafuñ am na ab jaxreew am na daroobe am na wégéj am na ab siin am na gonjo xam na loolu nag lépp danañ ko indi ci seen émission bu mag bii la nga xam ne mooy waxtaane ak bokk àndante ci ak bokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yi ñoo ngi ciy woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne bëgg nga ñu waxtaane sa maam noo ngi lay woo nag ci suñu télé mag bi la ngay xam ni ah mooy 24 actu di ciy àndante ak yéen par 15 jours loolu nag mooy émission bu mag bi nga xam ne moom lañ leen doon jukki tey di ci présenté tuuti rek jukki ci maam maaram li ci des bari na waaye maam maaram xëyul ci ay minutes moo tax ñu jukki ci loolu rek bëgg koo présenté àdduna ngir àndante ci ak yéen daanu ànd ak yéen nag ci émission bi par 15 euh, jours bu ne ñoo ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne bëgg nga nu waxtaane sa maam mbaa nga bëgg nu àndante émission bi rek noo ngi la ci woo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu